asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp eh, di dikkaat rek ci wàllu xabaar yi nga xamee ne sama mbokki taskatu xabaar yi rawatina ak yëglekaay bi nga xamee ne moom lañu ñu duppee critique nga xam ne ay taskatu xabaar yu am solo ñoo fa nekk di ay jàmbaar lool di suñu ay nattango tey dañoo dellusiwaat ñoom ci mbiru yalwaan mi ak xale yi nga xam ne dañoo nekk ci biir mbedd yi journal bi nag wax na ci lu bare bare bare bare bari waaye ci biir wax ji dañoo yemul rekk ci maanaam mbindum taskatu xabaar dañoo bind ba noppi dem waxtaan ak ilimaan wala kenn ci ilimaan yi koo xam ne kii ku ñu naw xam-xamam la nag moo di imam Kanté ñu gën koo xam ci Ahmadou Makhtar Kanté mu nekk imam euh, ci jàkka ji nekk fii ci point E wala jumaa ji nekk fii ci point E ndeysaan muy ku baax nag imam Kanté euh, yàgg nañ jokkoo ci ci wàllu téléphone di échanger maanaam di waxtaan ci lu bare bari ci wàllu xam-xam man mii léeg-léeg ñu am benn benn mawdu bu génn euh, ñu waxtaan ci maag moom kenn ku nekk joxe xalaatam muy nit ku baax imam Kanté moomu nag tey jii ñëw na ci lu yaatoo yaatu ci wàllu ci wàllu yalwaan meeg yu demee noonu waaye suñu tënkee ay waxam ah, ci tomb bi daal li mu wax bokk na ca ne amul lenn lenn lenn ci lislaam loo xam ne lii mën naa layal ñu wax xale bi ni ko génnal dem yalwaan yi nee na eh, Imam Kanté nee na du ci hadis du ci ay alxuraan nee na loolu moom kenn mënu ko layal waaye nag dikkaat na nag ci wàllu yalwaan bi ba tey daal ba tey itam ne am na nag yu ci rax du xale yi am na ñu nekk ci mbedd yi ñi nga xam ne xëy na sax ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo lu wër ndomba ci la ñu jógee euh, looloot fokk ñu bàyyi leen xel ne xëy na ñëpp duñ ay taalibe waaye am na ñu ci rax itam dikkaat na it ci sëriñu daara yi mu ne na fàttali nag ne li may wax ab taskatu xabaar buy jottali ay wax la ci benn groupe bu mu bokk rek fa tabarakallah waxul ja al xaqu wa dañoo war a wax ji fidèlement noonu lañu ko jàngale maanaam bi ñu nekkee école di jàng mbiru journalisme dañu wax ne bu ñu leen joxetee texte wax leen texte ba na mu dikkee rek yéen su ngeen bëggee def commentaire nag ngeen dem féete fële seen commentaire bopp waaye waxi jàmbur moom kenn du ca yokk leen euh, ndax lu ñu la wax loowul sa yoon newu loolu mooy liggéey léegi nag moom Imam Kanté mu dikkaat ci Eh, rek wax loolu ne am nañu ci rax wax itam ci sëriñu daara yi ne eh, dañ leen maanaam est sëriñu daara yépp sax am nañ niveau boobu nga xam ne moom la ñuy wax ngir mën a am daara pour jàngale alxuraan néew amul waaye dafa ndax ñëpp loolu warees na ko seet itam eh, mu ne nag ba léegi ci senegal ay ndey daara day am taalibe bi mën naa génn dem yalwaani lu mu añee wala it mu dem yalwaani rek lu mu reeree bu dëlsee ñëw toog ci biir daara ji jàng loolu xamoon nañ ko imaam Kanté ne loolu lañu xamoon ba léegi nag am na ay diwaan ci biir Sénégal goo xam ne gi ay ndey daara nga fa di jàppale ay daara ndax loolu di eh, di jàppale xale yi nga xam ne dañuy yelwaan añ ak reer rek. kaat itam wax ci moom imaam Kanté di imaam bi nekk ci point E eh, ma fàttali na nga ne borom xam-xam la ndax nekk eh, man fekkante nañ université lu mu gàtt gàtt gàtt donte moo fa jiitu woon nekkoon na fa sax imaam ci université. mu nekk éminent intellectuel nag moom du du du alxuraan rek la jàng ak arab ndax ku ci wàll tubaab tamit yàlla defal na ko ci fàttu imam Kanté na ne ne l'islam euh, du du du fekk xale bu amagul responsabilité bu koy responsabilité nu ko demal defi nangam dikk na sax ci benn xadis ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu nekkee Madina xamaloon na leen ne maay baayu maay baayu bépp jirim boo xam ne bii yaa ngi fii di gone bu nekk ci biir Madina rek euh, baayoo naa la ngir jàppale leen maanaam xale responsabilité mi ngi nekk ci ay wéy juróom ak ñi nga xam ne tam ñoo koy yar ngir orienté ko waaye du ne xale bi ci boppam mooy jël responsabilité pour dundal boppam ak yu demee noonu li maanaam daal euh, ci gàttal daal bu ñu déggee waxam te euh, benn taskatu xabaar boo xam ne moo signé papier bi di maam Seck Mariama Diallo wax na ne daal euh, Imam Kanté daal li mu bëgg a firndeel mooy yelwaan ji moom amulu lay léegi nag euh, xale yi itam du ñu du ñu yëpp ay dongale am na ñu ci taxawaa ñu ci ñu ci raxaale te loolu yàggeef na koo wax mu ne nag itam euh, euh, maanaam maanaam sëriñu daara yi ñuy jàngale alxuraan ñëpp itam dañ ko war a seetaat bu baax a baax ba xam ñëpp sax am nañ niveau boobule te xale bi itam waruñu ko bàyyeeg boppam rek mu daal di fu nekk mu fay gëweelu di wut lu mu lu mu ay xaalis lu mu yor daanaka toute la journée nga nekk ci biir mbedd yi mu ne loolu bu fekkente ne yalwaan la loolu moom daal daal daal jaaduwul jaaduwul ci li nga xamee ne moom moo di ni lislaam tërale waaye nag il lay wax ji daal mooy da ko wax sax ci tubaab il n'y a rien dans l'islam qui peut justifier qu'on oblige des enfants à aller manger waaw mu ne amul dara ci lislaam loo xam li mën naa tax ñu bu xale bi na ko demal nga yalwaani nee na du ci hadis du ci du ci alquranul karim waaye nag war nañoo xoolaat nag doxalin yi seetaat daal mbir yi taalibe yi nag moom li ñuy def ci biir mbedd yi am na ci loo xam ne moom exploité nit ki la exploitation de l'homme par l'homme qui ne dit pas son nom maanaam am na loo xam ne jëfandikoo nit ki la waaye dootul daara loolu daal laa tënk ci ay waxam Imam Kanté nag nit ku baax la borom xam-xam la eh, man ku naw xam-xamam la ci fànn yu bare bare bari ni ñu ngi koy sant di ko gërëm lii mu wax nag ay waxi moom la yu ko eh, taskatu xabaar yi laaj mu lii asalaamaaleykum ma yokkat ci benn xabaar rek bu dem ci wàllu mbas mi Covid 19 bi loolu euh, ab xayma rek la bu gàtt maanaam euh, bu ñu jëlee weeru janvier weeru janvier wii nu génn maanaam benn fan ci weeru janvier ba 31 janvier mooy weer wi nu génn rek weer wi faddu li faatu ci Covid bi natt nañ ko ba xam ko 228 la maanaam ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñu faatu. ci weeru janvier bi fanweeri fan ak benn yi nu génn maanaam weeru lëmm wi daal deux cent vingt huit personnes ci Sénégal ñoo ñàkk seen bakkan ci lii nga xam ni moom moo di mbas mi ci fanweeri fan yi ak benn asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa maa ngi jégalu kat fàtte woon naa waxaat ci imam Kanté ci njàngum alxuraanam ku jàng alxuraan la eh, ku ko xam la ku ko mokkal la ku ko maîtriser la itam daal maanaam jàngantuwu ko sax nag da koo jàng bu baax a baax a baax a baax a baax. ndax itam nit buy wax ci dara war na caa xam dara loolu dama koo fàtte woon maa ngi ci jéggalu ku jàng la maanaam nekkul koo xam ne kii rek daa mel ne man di for